Abdoulaye Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Dakar wala soxla Abdoulaye Diouf Sarr ñu bëgg nga ca mairie Dakar Abdoulaye Diouf Abdoulaye Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye yow la ñu bëgg nga nekk ca mairie Dakar jaraaf yi nekk Dakar ànd nañoo ak yow saltige yi nekk Dakar ànd na ak yow notable yi nekk Dakar ànd nañoo ak yow frère yi nekk Dakar ànd nañoo ak yow ndey ji réew yi nekk Dakar ànd nañoo ak yow. farba yi nekk Dakar ànd na ñoog yow ndey jàmbur yi nekk Dakar ànd na ñoog yow nee na ñu affaire bi yow maam yi fukki pej ak ñaari ay sey groupement famille mouvement yi nee na ñu Ablaye moo gën ci Dakar waa santé loolu la ñu wax Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye yow la ñu bëgg nga nekk ca mairie Dakar Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye bëgg nga nekk ca mairie Dakar Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Abdoulaye Abdoulaye yow la ñu nga nekk ca mairie Dakar Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye yow nga nekk ca mairie Dakar mouvement Abdoulaye Dakar moo ko soxla bare nañu jóg taxaw ànd ak yow. lebu borom Dakaru lebu borom Dakaru président Macky Sall sant na la askan bi kontaan nañ si sa taxawaay ak sa liggéey lebu borom Dakaru Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye yow la ñu bëgg nga nekk ca mairie Dakar Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye la ñu bëgg nga nekk ca mairie Dakar. Abdoulaye Diouf Sarr prochain maire de Dakar. bu bees la ñu bëgg dina am ndax ñoo ngi ak Diouf Sarr. Dakar bu bees la ñu bëgg dina am ndax ñoo ngi ak Diouf Sarr. la ñu bëgg lañu bëgg dina am ndax ñoo ak Diouf Dakar Dakar bu bees lañu bëgg dina am ndax ñoo ak Diouf Sarr na ko mën na ko Dakar bi ñu bëgg Diouf Sarr na ko xam naa ko xam naa ko Dakar bi ñu ko na mbërëm ëpp na mbërëm doomu ñaay moom ëpp na ëpp na ëpp na doomu ñaay moom ëpp na mbërëm c'est le meilleur Diouf Dakar Dakar bu bees lañu bëgg dina am ndax ñoo ngi ak Diouf la ñu bëgg dina am ndax ñoo ngi Dakar Dakar bu bees la ñu dina am ndax ñoo ak Diouf Dakar Dakar bu bees la dina am ndax ñoo ak Diouf Dakar Dakar bu bees la dina am ndax ñoo ak Diouf Sarr mën na ko Dakar bi ñu bëgg Diouf Sarr mën na ko xam naa ko xam naa ko

parce que am nañu fi nekk lii mënu la ci dara Dakar bu bees mooy Dakar bi xamante ne di na ak jariñoo Dakar pour xeex pouvoir bi fi nekk am na ñoo xamante ne 2009 lañ leen jox Dakar yore ko ba léegi bon dëkk bu ngeen gisee commune boo jël si dakaale les 19 mënoo laal benn projet ne projet bi ville la jóge et pourtant la ville a des ressources en moyenne plus milliards par année ba léegi mënoo gis benn commune ñu projet bu mag bi ville la jóge bu ngeen déggee ville de Dakar rek yéen ngi leen dégg see xëccoo say combat avec l' état central ku bëgg a combattre état central bi da dem créer un parti politique mais bu population Dakar askanu Dakar Dakar waayi ak Dakar waasi dénkee seen ville da war a taxaw liggéeyal leen defar lise yi bu baax defar centre de santé yi def si matériel jàppale si état bi dugg si école yi liggéey fa mais defar des projets yoo xamante ne dana permettre ñu arriver à ce que Dakar soit la capitale la plus propre d'Afrique mais la capitale bi xamante ne moo gën a wóor ci Afrique en termes de sécurité Dakar bu bees bi ñu bëgg a defar aussi day créer des emplois am na ñoo xamante ne ñoom ñu yor tey seen xam-xam yeggul ci ñu xam ne une ville dafa war a créer des emplois pour les populations de Dakar ñoom yaakaar nañ ne une ville c'est pour juste faire des mobilisations politiques ou pour faire des marches y a Dakar qu'à Dakar qu'on des acteurs de la ville ceux qui dirigent la ville organiser chaque mois des marches tout à fait politiques bàyyi soxla population yi ñun dakaar bu bees bi ñu bëgg a defar day créer des emplois pour les jeunes et ces emplois pour les jeunes on peut les créer dans les nouvelles technologies de l'information de la communication man nañ ko créer dans les emplois verts avec l'environnement mën nañu ko créer dans l'aménagement de Dakar avec le pavage systématique de toutes les rues de Dakar mën nañ ko créer dans les quartiers sûrs dans les domaines de la sécurité man nañ ko créer aussi dans la santé aujourd'hui ñun décidé nañ de lancer l'initiative des médecins de quartier qu'est-ce que cela veut dire danañu signer des conventions avec euh, des centaines de médecins pour les faire pour faire en sorte que médecin bu nekk ou bien groupe de médecins bu nekk jël en charge un quartier de mettre à la disposition des personnes du troisième âge du quartier les numéros dédiés pour que vous n'avez sapeur vous demandez aux médecins de se déplacer pour aller vers les familles parce que très souvent les familles ont des difficultés pour rejoindre l'hôpital donc ce concept est un concept qui amène le médecin dans les maisons avec une prise en charge de la ville parce que la ville doit s'occuper des personnes âgées. On a aussi dans notre programme un programme extrêmement important boo xamante ne jeunes yi yéen yéen a ko le programme Dakar du sport et des loisirs le Dakar bu Dakar la boo xamante ne. boo bëggee terrain de jeu multifonctionnel avec du gazon synthétique dans les quartiers avec tout un équipement pour le basket boo gëstoo à moins d'un kilomètre di nga gis parce que nous voulons démocratiser les équipements de sport pour que jeunes yi dans leur quartier les équipements de sport mais aussi un dispositif de loisir nekk maire Dakar de 2009 à maintenant gisuloo fenn nga créé dans Dakar une grande salle de fête municipale Dakar amul actuellement salle de fête municipale les gens ont des difficultés dañuy def grand théâtre ou ailleurs mais une ville ambitieuse avec le Dakar bu bees va lancer la salle de fête de Dakar pour la jeunesse de Dakar tey dafa wax ne nous avons dix axes stratégiques sans engagement vous allez vous rendre compte que le Dakar que nous voulons c'est un Dakar sérieux un Dakar sérieux mooy un Dakar qui est confié à des gens qui ont de l'expérience qui ont de la compétence qui ont parcours et qui ont programme en face demandez-leur leur programme en face wax leen leen wan leen ñu programme ils n'en ont pas ils du populisme et le Dakar que nous voulons assez du populisme nous un Dakar bu bees avec une gouvernance concrète au service des populations population de Dieuppeul-Derklé maa ngi leen remercier wane ngeen tey engagement depuis 17 heures vous êtes là vous n'avez pas bougé parce que vous voulez élire mon ami frère Bey prochain maire de Dieuppeul-Derklé et nous allons élire Zahra Iyane Thiam prochain maire de Liberté Abdoulaye Diouf